Pape Cheikh Bélier yi ñoom la ñuy commencé fàttaliwaat datu tey di euh, mardi 12 avril 2016 ñoom ñu ngi leen di wax ni tey euh, soxlawul ñu def lenn pour ñu attirer attention euh, si ñoom bu ñu rombee rek dinañ leen remarquer ba tax na ñu ngi leen di wax seen i ay atu tey jii nañ ko wone bu baax a baax d'autant plus que façon bi nga xamante ne moom la ñuy communiquer fan yi neex na nit ñi. taureau yi ñoom tey ñu ngi euh, tenter à la fois isolé wu des ci seen ruq wala croquer la vie à pleines euh, faire la fête euh, ñu ngi leen di wax ne nag nañu tàmbali par apprendre une bonne boo xamante ne dinañ détendre bu ñu fa jógee nag dinañ xam exactement ñoom lan la ñu bëgg def ci journée tey bi Gémeaux yi ñoom am na une lune contrariante boo xamante ne euh, mi ngi leen di mettre de très mauvaise humeur alors que jamono ji nag seen projet yëpp mel na ni euh, nekkoon nañ en bonne voie de réalisation waaye nañu taaxirlu rek fileeg suba dinañ ci mën a euh, gis plus clair. cancer yi ni leen ko waxee démb rek à peu près moom noonu lañ leen ko waxaatee tey euh, nee nañ leen ñi ngi def ay effort yu bare pour mën a jot euh, euh, but yu ñu fixé wu ak arrivé à leur fin waaye jamono ji ñi ngi ressentir benn baisse d'énergie bu doy waar baisse d'énergie bu rëy ñu leen di wax nañu jël un peu de recul nag avant le sprint final ndax fi mu nekk nii des na yegg seegun ca ba tax na ñu ngi leen di wax ne ñu récupérer jéem a jëlaat tuuti force lion yi ñoom tey calme ak repos moom moo nekk le mot d'ordre les mots d'ordre euh, ndaxte kat soxla nañ noppalu bu baax a baax su fekkee ne bëgguñu seen santé yëg seen coono gannaaw euh, bés yu wees yi nga xamante ne ressentir nañ si coono yu baree bare vierge yi ñoom dañ leen di wax ni euh, dafa am benn question bu essentielle boo xamante ne foog ñu posé wu ko mooy ñaata la ñu soxla pour mën a atteindre seeni ay objectifs c'est une question essentielle su fekkee ne bëgg nañ avancer si voie bi nga xamante ne moom la ñu choisir nañu toog taxaw seetlu budgétiser xool seeni ay projet ñaata lañ ci soxla su fekkee ne bëgg nañ avancer bu baax a baax ballon si ñoom ñi ngi rêver d'exotisme de voyage wala d'aventure nañ ci waxtaan ak seen conjoint pour xool lan moo envisageable seen budget lan la leen mën a permettre ñu def euh, su fekkee ne nag célibataire lañu ba tey mun nañ dem en voyage même bu fekkee ne bu ndaw la ndax ci tukki googu suñu moytuwul dinañ def une rencontre bu intéressante scorpion yi ñoom am na ay secret ak ay manigance yoo xamante ne ñoom ñoo nekk di jalonné euh, seen quotidien mu mel ni nag am na dëgg guñ leen di nëbbu wala euh, xamuñ ci lépp loolu ub na seen bopp lool waaye ñu ngi leen di wax euh, ñu waxtaan si ak une personne de confiance te nañu jéem au maximum reste en dehors de tout ça fi mu nekk nii daal ay coow yaa waxoon ma ne la bu leen ci kenn dégg sagittaires yi ñoom journée bi nee nañ leen mun nañ ko consacrer euh, à leur partenaire surtout su fekkee ne kooku jamono ji euh, nekkul moralam dafa nekk en berne nañu prévoir une petite sortie benn spectacle wala yóbbu ko restaurant bref nañu def lépp lu ñu mën ngir mën a bégal nit kooku te fexe daal ba mu retrouver bonne humeur am Capricorne ñoom c'est moment tey jii su fekkee ne dañu am kër wala patrimoine ñu fësal ko su fekkee ne tam dañuy yëngu ci mbirum euh, jënd ak jaay ba tey ci seen patrimoine boobu nañu déglu seen partenaire ndax dina leen mën a jox de très bonnes idées encore faut-il que idées yooyu ñu leen di jox ñu mun ko accepter si verso yi laay ñëw. verseau yi nag ñoom nee nañ leen même su fekkee ne amu leen le cœur à l'ouvrage fexe leen daal ba seen humeur bi nga xamante ne dafa nekk en dents de su leen neexee jaune bu leen neexee bleu xoleet bu leen ko sippi seeni ay collaborateur ak ñi nga xamante ne ñoom ngeen di liggéeyal waaw defante bi ngay defante. tu parles à des Sénégalais damay wax ak verso yi téléspectateurs. verso yi tu parles à des gens gis nga sama baaraam bi fu mu sànq waaw voilà. tu parles à des gens tu parles attends yéen gis nga li may waxati bii fa foore gaa ngi. tu parles tu parles attends Bijou. toi au moins tu es professionnel. ça c'est des amateurs. elle parle à des gens yu yeewu fajar. sarax ko di ko seetaan. est-ce que dafa jar defante ak ñoom. entre nous téléspectateur eh, defantewuma ak yéen xoolal dama defantewul ak téléspectateur. verso bi nekk normalement. il faut citer tout simplement les actes. muy yéene xoolal ça se fait point. j'avoue génneewu leen ci génneewu leen ci eh, mais mun a Gueye Babou Lo sama rakk ji xale bu bëri diplôme bi. waxal yàlla joxe horoscope moom baaraam utiwul. est-ce que jar na xam na boppam verso yi may seetaan waxuma ak yéen waaye gis ngeen sama baaraam. jaxase naa la ak ñoom kullu kuy verso ñëpp gis ngeen sama baaraam ñoom ñëpp saa yoo génnee ñu zappe en tout ba ma yeggali dañuy ji xool ndax ñun rek kay feeñ. verso yi danaa ci yeggali mais ci sax ñu comprendre ñu dégg la ñu nekk ñoom seen humeur bi nga xamante ne dafa nekk à dents de scie tey jii. su leen neexee jaune su leen neexee bleu. waaw buñ ko sippi seen collaborateur. waaw waaw ñi ñuy liggéeyal. waaw ndax bu ñu meree ca àll ba. Mm. jàppee seen ay collaborateur ñeexu ñebe ba bëgg leen koo sippi mënta ne kon yem leen. ñeexu ñebe bi fii ah ah ko ah waaw maa ko traité. suba la xewee. te suba. allez waaw. Eh. Ah mais mais eh, mais may mën a waxal yow tamit. man du ma tàccu. mais waxal ci lii li mais lii. lii c'est pas normal lii manque de professionnalisme. abi abi weesuwul lii. ça lii lii sax mooy abus de confiance. mais li mooy abus de confiance. abus de confiance. que dit la loi sur ça. <laughs> d'abord la loi sur Zeyna lim ma. def déjà yow mii rek nga xam ne yaay après ñoom tamit la loi ci lim leen wax. ñi complicité. de meurtre. <laughs> sarax ma rek. lii agression mentale la et verbale déstabiliser. mën na yàq liggéey c'est vrai eh barki Serigne Touba may mun a yaa ngi wax lu important. seen nit yaa ngi liggéey ci liggéeyukaay yi. seen seen collègue yi di leen toroxal. di leen toroxal di leen indil ay wax. di leen gaaruwaale. waaw te ñu def groupe. Pape Cheikh xam nga defoon naa fi li nga xam ne mooy. Euh, ça détruit la santé mentale du travailleur. mën nga toog sax manqué concentration. ah oui parce que je suis pas concentré man revue de presse bi ak présentation mu ni l'observateur dama koo dëpp. je, je, je perds mes mots. Je suis en train. Ça c'est grave. Elle, elle est en train de me perturber. en complicité avec Mado ak ak keneen ki Alfi. Il faut que tu vérifies. Après tu me diras de vérifier pas aussi. Après tu me diras que dit la loi sur ça. Euh, waaw bàyyil ba ci kanam après nga wax ma lan la ci loi wax. seen salaire. waaw trois prochains mois. mooy yéen jël ko. sinon kaso moo leen ci mën a fekk. d'accord léegi léegi léegi. verso yi nga ak verso yi voilà. léegi xoolal ni muy waxee. ak poisson yi d'accord. regarde ici bijou d'abord xool da nga bëgg xaalis regarde ici ba pare regarde elle parle day wax ci yeneen signes normalement mais bi bu ñëwee ba ci verso mu wax ci mu waxee ko de façon très incorrecte maintenant parle des poissons. alors les poissons jamono ji am na kenn ci seen waa kër. discrimination raciale <laughs> non discrimination raciale moom mënu fee ne discrimination. astrale xëy na wala. oui discrimination astrale. astrale peut discrimination caractérielle et de. et de et de et boobu lu ci waaw. parce que meurtre bi dama bëgg bokk ci moom. dama bëgg mu bokk ci parce que ñii bëgg naa ñu dem assise quand nii mooy yéen. assise ñii dama bëgg dem assise nag. meurtre passionnel. ah voilà tentative de meurtre. sax la ñu tentative de meurtre meurtre passionnel la. tu es la plus petite de la télé waxtaan ak yow. Ah. <laughs> lan la. yow sa trois mois c'est le dugg na vas-y pour les poissons vas-y pour les poissons ma xoolaat. kii moom da laa régalé xëy na bu si la. yéen da ngeen dem assister. <laughs> alors on termine avec euh, les poissons. émission Ahmed Aidara lañ leen di yóbbu yéen ñëpp di ko dem assise <laughs> Ahmed dina leen waxtaane lu leer laa leen wax ne. xam nga soxla bu teew boo ca gaaw. <laughs> di ngeen dem soo ma <laughs> arrête horoscope bi nag ndax Verseau yi tey jël nañ temps trop poisson ñoom nee leen am na kenn ci ah. seen famille koo xamante ne ñu ngi def euh, du souci pour ñoom euh, ay problème kooku upp na seen bopp lool euh, nañu xool nag naka la ñuy def ba mën dimbale nit kooku comme muy financièrement wala rek que ñu proposé ko seen aide waaye daal nañu fexe rek ba dimbale nit kooku Pape Cheikh li moo nekkoon horoscope tey on